ndax dañu nekk si site bi di fi liggéey ku nekk yàgg na dégg diggante femme transformatrice yi ak waa centrale à charbon masuñoo nangu seen dara nag am ñu douze groupements reconnus même état bu fiy dugal ndimbal si ñun lay ñun lay jaar ñii fii liggéey on a plus de mille femmes mille femmes bu fekkente ne dañ nekk en pleine saison parce que ñoom dañ daan dee bu koor ñu ñëw ne dañuy maye ndogu mais dugg nañ si site bi dugg si biir dëkk bi woote ne euh, ku bëgg si li centrale bi di joxe ñëwal fekk ñu biir Xelkom Xelkom nag ab mu ngi nii lieu public la fu ne waaye mën na fa jóge effectivement noonu la demee ni ñu jóge si biir dëkk bi am nañu jóge faneen ñëw dugg si mbaar yi ñu jox leen ay kit ay euh, bon de denrée alimentaire wax nga xamante ne bon bu nekk mu ngi dikkee 25000 si la ñu wax mais ñii am ñu bëri seen xaalis bi ñu ko jëlee euh, denrée matul sax 80000 ña ko doon ko ñenn ñi ñu ngi am ñaari paquet suukar ak 100 fana café je pèse bien mes mots nag ñu dégg ne dañu topp dëkk bi ne jox nañu les femmes de Xelkom 10 millions te 10 millions yooyu ñun jaaxal nañu ndax yaa ngi taxaw si site bi xam nga ne fii 50 mbaar amu fi yi nga xamante ne te ñoom neen joxe nañ 300 kit 300 bon yi nga xamante ne boobu nekk 25000 francs nit nag booy wax da ngay wax rek te yàlla tax noonu mosunoo bëgg dara centrale bi nit boo ko fekkee si site day fekk nga amal ko njëriñ mais ñun si wàllu économie dañuy faagaagal si wàllu euh, euh, santé dañuy faagaagal te xeex boobu ñu si dolli gannaaw tant que centrale bi jógewu fi démb nag dañ doon wax ne fay nañu waaye démb dañu yendoo taal